mbooloo bi salaamaaleykum président salaamaaleykum waaw comme da ngeen a jaaxle nag te ba pare gars yi jaaxle nga wax leen luy dindi jaaxle nga julli ndox moo koy fondement mooy ndox mi ngay jàppe dana dem ba nekk ñeenti ràkka waaye bu ñu demee sax ba ñeenti ràkka yi jeex ñaari sujjóot yu yu mujj yi jeex ngelaw koy yàq ngelawal moo koy yàq walla waaw bu ngelawal amee nag jàppaat julliwaat gay yi nag lu wax ñu ne déedéet nañ rek jarul jàppaat téere yi ne déedéet. ndox a koy defar ngelaw a koy yàq ngelaw li tuute da koy yàq kon jàppaat julliwaat lan mooy jàppaat julliwaat parrainage constitutionnelaat ba mu ba mu lépp am parce que am na ñu génn tawaruñoo génn te yàlla wax na ci alquran ne fi samuumin wa xamimin wa zillin min yaxmumin laa baaridin wala karimin bu ci karim ba bokkul du baax man nag ñaara ma tënk benn bi extrémisme ci laa judd ci laa màgg ci laay dee bu ni ñu jaaree nii ma jaar nii man su fekkee ne da ngeen ma laaj dat passation passation de service bi xam nga foofu mu baax mars deux mille vingt sept li tax ma wax ko goudron bu yàqoo duñ ko defaraat ci ñaari fan parce que diggante mille deux mille vingt et ak tey depuis mars deux mille vingt et ak tey ñu ngi yàq république yi di dën di dëbb euh, euh, institution yi di saaga sëriñ si te gis ngeen bu ngeen sàgganee ba ñàkk ci dialogue bii ñun sëriñ si ñoo leen di atte xaw ma tuwaale yi doonam tiwaawoonam xawlax mais da ngeen di ñëw ñu atte leen waaw ñun la sëñ bi le président doon wax ne am na force yu organisé force yu organisé pas pasol nga am benn xalif général bu fukki xalif général wootee rek ne lii la muy lii muy jeex ah lool loolu la de parce que yéen politique yi ba ngeen fi nekkee da ngeen ñëw box jàllale ñu fan ma ñu ñëw ba fu ma jaar gendarme ngeen ma du fii sama romb doom ñoo romb la way monsieur le ministre xam nga yéen ñu bàyyi gannaaw ñun it mën nañ ko yor ndax Iran yor nañ ko ñu ngi yor bombe nucléaire Maroc nga ko yor ñëpp ay sëriñ ak i sërif li am solo nag mooy président yàqaluñ la réew mi lañ yàqal te réew mi danga nga koo jox sa parole sa bakkan yaay premier soldat yaay premier soldat ma ne boo ñemewutoon a fetal kon Casamance ba tey mi ngi tàkk waaw parce que jo doon xeex yaa leen jox nga naay fital leen ñu ne ñëwewuñu leen fii nga ne dem leen fa am na yow sax danga dangaa yoo dugg ci front bi te kenn xamu ko waaw am na waaw euh, dama ne doon tukulóor ma leen màkki dogata dogata dogata xaamaay dogata waaw kon nag euh, mbokk yi mbokk yi mbokk yi Seydina Aliyu dey ba waa ji ñëwee daf ko ameel bor fayu ko bañ ko ooyee tribunal dafa ñëw toog kon nag su fekkee ne am na ay ñu li ñuy liggéey ci tribunal buñ leen tuumaalee Abdou Mbow mën naa xam ndax dafa leen daf leen di setalam daf leen di ñàkk a setal waaw bu leen setalee ñu ne ko mbow noonu la ah bu leen setalul nag ku setul doo mën a atte xanaa lu raw loolu chauffeuru président bi képp chauffeur bi laa wax de léegi bu ñu gars yi filmé woon ko ñoo ne jinga mi ngi nii waa ji di ko jox un million nee na ko dimbali pour mu ñëw nga jox ko audience ci saa chauffeur bi dañ koy dàq dootul ndawalal président wala waaw dem chauffeur moo mënta dawal bu setul wax walla nag koo xam ne boo àttee c'est fini yëf yi daal réew mi jàmm ji nga xam ne moom lañ bëgg a yàq bëgg a profiter des périodes vides entre la entre une passation de service et une prise de service c'est la où y a danger ji nga doom xam nga fu muy dee buy juddu fuy juddu ni nga koy génnee buñ ko génnee du waax rek du juddu wala du ngeew te bu ngeewul dara du baax affaire bi foofu la yëf yi nekk yow président Macky mën nga ma seede am nga fi fukki at ak ñaar benn yoon laa ma sa toog yow audience ci te Mohamed Dionne mi moo ko indi boobu ba léegi ñaarul te bu bu loolu noonu nga ne ma recevoir na naa nga mi yoon te nit ñi foog nañ ne euh, booy jàpp julli sax dag ma laaj ndax ma maa ngi jàpp te ñëw pour boo ma jotul te loolu amul te te yow xam nga ndax man danga danga may jox daraam déet xam nga ko xam naa ko man sax maa daan joxe ah kay maa joxe mi ngi nii maa daan joxe man waxuma dara pour sama bo waaye Sénégal gii man toog naa euh, euh, gouvernement États-Unis ooma ndaw suñuy wax jindaay ci euh, département d'État ñu ne ma dañ lay nommé ambassadeur itinérant ma bañ Zalmay Khalil Zada poste bi ñu ko jox man bi ma bañee lañ ko ko jox waaw ku mën a am nekk ambassadeur itinéraire Amérique ma ne ko non parce que Ablaye Wade vient de nommer il y a deux semaines te du ma bàyyi Sénégal ngir Amérique président sama mbokk sëriñ sëpp ceeb lañ lay ñaan ak diw ak suukar ak tamaate ak jiw gerte ak engrais ak fajo ak ordonnance ak aji màkka ak umra ak lu ñu gàmmoog lu ñu ziyaara est-ce que mos ngaa jot sama leetar mu soo koo jot mu soo koo jot ndax man loolu dama koy jënd di ko joxe ah kay réew maa ñuy déglu te boo waxee ñu foog ne log tax man log indiwu ma dialogue ma indi waaw kay kon nag wa maa ubari président xam nga yow lii sa problème am na ba ñuy xale tàngal bu ñu daan buñ daan macc bu tudd forox neex billaahi forox neex la yàq forox neex xale yi la wax rek forox neex jënd dafa neex buñ koy tàcc am te ko duñ bëgg mu jeex bu jeexee ñu bëgg beneen boo fi defaloon dara dañ leen monsieur le président euh, au revoir au moo gën a yomb lii yëpp booy see ñu xar ci suñu tànku bakkan gi fii àll bii fii lii nga fii def ñi la fi jiitu buñ ko defoon doo koy fekk kon leneen nga fii def yow defal nga ba defal ñi ñëwagul defal nga cinq génération ci kanam mais man daal alaaj Ibrahima sama mag ju baax ja wàll yu waxam naaw lay def ba mu laajee ñu ne ko Macky dernier délai am Sénégal mooy vingt cinq de février deux mille deux mille vingt quatre mu ne nii nii nii nii teen xool xaw nag fu doon xool fa mu yàgg mu ne déedéet date boobu ngeen wax du boobu fekk de waaye bu weesoo dana fekk ba tey Mbacké fi nekk président Macky man du ma comme du ma la gis du ma la déey fii laa lay déey gis nga li defar réew mi mooy njëf yi ñaar rek la euh, maanaam euh, benn kii inclusive inclusive nag ñaar rek mooy tax mu inclusive d'une part Macky Sall d'une autre part Sonko ñu wate Macky gagné ñu continuer jërëjëf Serigne